waxtaanee mais tey gis nañu ne euh, mën nañu ne euh, guléet tey ñu daal di demande li nga xam ne moom mooy autorisation de marche pacifique ñu daal di leen ko acceptel mu doon loo xam ne bett nañu bëri euh, parce que amuñu woon yaakaar que ne bu ñu defee li nga xam ne rek moom mooy demande d'autorisation dinañ leen ko acceptel ba tax rek gis nañu ne askan bi mu mel ni dañoo namoon li nga xam ne moom mooy génn wax li nga xam ne moom moo nekk seen biir xol naka ngeen gisee li nga xam ne rek moom mooy marche bi nga xam ne amoon na tey jërëjëf euh, Yacine. laajte bi am na solo dañuy wax ni manifestation bi egsi na ci moment boo xamante ni moom la lañ ko doon xaare mhm. parce que communication la pour mën a transmettre euh, benn message boo xamante ni tey ñoom en tant que ay opposants wala sax mën nga wax ni askanu Sénégal. Mhm. Euh, ci biir manifestation boobu pour mën a jàllale li nga xamante ni mooy seen communication. Mhm. parce bu ñu waxee la communication. Euh, action qui transforme la situation. mooy ñu ngi nekkoon ci benn situation boo xamante ni situation politique gu Sénégal dafa pëccëxoo mën nga wax ni say ku gën a ëpp doole sax ci opposition bi muy Ousmane Sonko. Mhm. gis nga cas bi nga xamante ni tey ñu ngi wax kaa euh, bu grave bi mooy wér gu yaramam. Mhm. Euh, ñu bëree bëri bëri ñu ngi wax ni tey dafa nekk wér gu yaram boo xamante ni. Euh, mi ngi si diggante. Mhm. dund ak dee. ñu ko gën a jege loolu la ñuy wax kon tey manifestation bi bu ñu ko autorisé te gis nga lu fa ëpp ca la fa la fa jib mooy libéré Ousmane Sonko. libéré ñi nga xamante ni mooy détenu politique yi. Mhm. kon euh, xëy na le président de la république dina dégg message boobu. Mhm. kon mën nga wax ni daal manifestation bi. am na ci moment boo xamante ni askanu Sénégal yëpp ñu ngi ko doon xaar. loolu daal nga ci mën a wax. Mm-hmm. kon forme la boo xamante ni communication la taman de sama xalaat ci réew moo xamante ni am na démocratie. Mm-hmm. Euh, askan bi heure bu ñu bëggee ñaxtu. ñu bàyyi leen ñu ñaxtu. Mm-hmm. ñu encadrer leen comme ni ñu ko defee tey. loolu tamit dina wàññi léeg-léeg yenn jafe-jafe yi nga xamante ni. bu askan bi bëggee ñaxtu mu jur yenn jéey yi loolu dina ko wàññi. surtout surtout dina ko wàññi am di yow mi nga xam ne yaa ngi woon fi nga xam ne rek moom lañu doon defee li nga xam ne moom mooy marche bi naka nga gisee sénégalais yi waaye itam at li fa daal di xewe waaw macha allah soxna Sali. Mhm. waaw déjà je me réjouis de cette euh, marche. bu mhm. tey bi parce que umpale woo leen ne Sénégal umpale wuñ ne depuis mois de mois de mai dañuy interdire manifestation yi. demande manifestation yi ñu def yëpp dañ ñu ko interdire sur prétexte genre euh, atteinte à la sûreté mm. ak ay ay atteinte ay outrage aux libertés de circulation des hommes et des personnes mm-hmm. et des biens prétexte yooyu la ñu doon jox tout le temps te ñoom ñu ngi déroulé nu mu leen neexee partout di créer embouteillage daan def lu leen neex ci dëkk bi mm-hmm. mais ñun fu ñu ko soxlaa woon pour s'exprimer parce que manifestation c'est un droit le droit la manifestation droit la du lu nuy lu nu lu nuy jéggaani lu nu moom la loo xam ne constitution moo nu ko may. Mhm. sunu àq ak sunu yelleef la boo xam ne dañ ko ci ci jamonoy Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade moo ko fi sampoon parce que am en gentleman politique bi nekk ci moom ak li mu daj ci opposition xam na ne opposition dafay soxla lii lii moo ko moom. léegi nag lii dafa bokkoon suñu agenda maa ngi la koy wax depuis mois de mai ñu ngi doon déposé ñu koy rejeté lu mel ni marche bi tey ak lu mel ni ay manifestation lu mel ni ay sitting yooyu noonu yëpp bokkoon na suñu agenda de lutte pacifique nag. Mm. ci jàmm boo déggee manifestation newul toj. xeer sànni xeer xeex ak yooyu du loolu c'est pour s'exprimer wax suñu naqar wax fi réew mi toll def ay dénonciation parce que opposition rôle dafa bokk ci muy dénoncer dénoncer li gouvernement bi ni gouvernement yi yoree yore réew mi di ko xamal askan bi ndax ñu leen gën a jege daanaka information yi mm-hmm. ñun ñooy informer askan bi ci ñi fal teg leen seen boppi réew dénk leen seeni réew nan leen yoree réew mi ak yàq geek ger gi ak tappale geek luubal gi mm-hmm. ak euh, injustice bi ci dëkk bi tëj yi moo waraloon chaque moment dañuy soxla pour di wax ak askan bi en communion doon mhm. aski ak ñoom doon bu ci mujj sax daanaka bi ñu wootee jaloog ñun demuñu bi ñu def mhm. suñu dialogue du peuple dañ ko xañoon ñu demoon mm-hmm. def waroon def lancement du dialogue du peuple au Parcelles jardin unité onze dañ ko tere ñu jóge fa dem ci siège u Malick Gakou mm-hmm. ñu fekk ñu fa délogé ñu génnee ñu dañ ñu doon tongal di ñu ko tere te gis nga saa ñu ko autorisé mm-hmm. du am toj du am yàq du am xeex du am xeer du am dara dara du yàqu kenn du yàq sa liggéey du yàqu duñ dóor sa dara mais buñ ko teree rek lay mm-hmm. indi coow lool te ñu koy teree dañuy bàyyi ba ñu dajaloo ba dernier moment bu ñëpp xaw a génn mm-hmm. ñu soog ko teree bu ko defee foofu jàmmaarloo bi du mën a ñàkk mm-hmm. euh, sànnante xeer beeg lacrymogène yi coow li après noo def mu am di nga dégg benn ak ñaari mort manifestation warta am mort c'est pas possible c'est pas normal léegi nag bi ñu demee xam naa seen xel yedd leen bët bu rusul nag toj mënuñu dëkkee di ko tere te te nekk ci ci dëkk bi ñoom it di def ay tournée économique campagne déguisée yooyu. Euh, di koj opposants yi di leen ko tere ba pare ñun bu peuple bi bëgg a exprimer wu ñu tere leen ko. dem nañ ba xam ne amatuñu ali bi ñu autoriser ko autorisation bi boo xoolee au dernier moment dañ bàyyi ba treize heures ñu soog ko autoriser. Mhm. mu bett ñëpp yaa ngi koy wax sa kàddu dafa mhm. bett ñëpp on s'y attendait pas malgré dañ doon topp logique bi rek on fait une demande après soo ko appliqué. Mhm. mais daam nañ ba amatuñ ci woon yaakaar léegi pari de la mobilisation boobu lañ doon bañ moo tax ñu ñu ñu ñu autoriser ko à 13 mais le peuple sorti massivement ñëpp génn nañ exprimer wu mhm. euh, ci ci ci en toute responsabilité ay personnalité ay kilifa leader politique yi mhm. ñëpp ñëw euh, ñu ngi saluer tamit gendarmerie ak police bi mhm. accompagner ko encadrer ko avec la manière du ñu sunu noonu gis nga bi ñu ko autorisé ni ñu àndee départ jet d'eau ba liberté terminus liberté cinq taxaw fa après wax ak askan bi pare ñu tàggatoo si jàmm ñiy for mbalit yi ñu ranger foofu defar mu set en toute citoyenneté et mhm. civisme dem ñibbi loolu moo war a nekk moo tax ñoo ngi ñaan loolu continuer bu mu mhm. amati ay ma mayoon nañ leen bii du leen ko mayaat parce que suñu agenda la bokk. Mhm. maa wax sànq agenda bi am na ay sitting lu mel ni dem ci benn place bu symbolique toog fa. ñëpp dajaloo toog. tranquille yaru après wax sunuy sunu mot d'ordre sunuy sunuy sunuy doléance pare ñibbiwaat nànk am na ay manifestation yu war a ñëw. comme lu mel ni place de la nation war mu ngi ci agenda bi ak lu mel ni tey marche tey bi tamit yuñ ci dugalati rek ndax mi ngi ci agenda bi buñ ñu ko tere incha allah nan mm. nu bàyyi ñu doxal foofu gëmuñ ngeen ñu euh, ñu leen ko dina dañ ko barricade euh, waaw mais nan nu nan nan nu ko may nan nu ko awal mm. bàyyee ñu ko parce que bu boobaa it suñ amul foofu ñu wut am na ak a pees am na yeneen lieux yu symbolique yu nekk ci dikk yoo xam ne mm-hmm. mun na mënul contenir tout ce peuple qui est derrière l'opposition mm-hmm. mais dina mën a contenir majorité bi mm-hmm. ñu bëgg a ñëw ñëw bu ko defee ñu communier mhm. ak euh, ak askanu Sénégal gindi leen ci ger gindi leen ci luubal gindi leen ci yu bari euh, soññ leen ci ñu bañ nooteel gi ci dëkk bi mhm. ak seen ak yelleef yi ñuy yi ñuy dëkk bi ñu gindi leen si soññ leen pour ñu góor góorluwaat te te gindiwaat leen ci élection yi ñu jëm mhm. euh, ñu waaj ko bu baax a baax a baax ak sur les détenus politiques surtout nañ leen bàyyi kaso bi xat na tàng na fees na ñu ngi ci tàngaay kaso tàngaay dafa métti rawat dafa kaso si boppam métti rawatina tàngaay bi nga xam ne ndox sax daf fay manqué jamono yee passé toog nañ 4 jour amul ndox kaso rëbës bi amul ndox chaleur yi mi ngi métti tàng jiir paquetage bi ni ñuy tëddee par wet la ñuy tëddee ñu leen di paqueté paqueté benn benn benn benn mu fees tell bay débordé nañ leen bàyyi ndax nit ci bari bari bari bu ñu dee mille huit cent mille mille mille huit cent soixante dix yëpp defuñu dara mm-hmm. lu dul délit euh, engagement politique mm-hmm. te engagement politique yaakaar naa du délit ak délit d'opinion quoi wax sa xalaat vraiment yaakaar naa du du délit quoi moo tax nan leen libéré quoi ils n'ont rien fait. ñu dellu mhm. seeni njaboot. vraiment vraiment. Mhm. Euh, euh, Gora gis nga mhm. tout à l'heure euh, mën nañ ne sax am di mi ngi koy wax que ne le fait que ñu bàyyi leen sax ñuy manifester peut-être dañoo jàpp ne gis nañu ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkee ci mouvance mouvance présidentielle bi ñu ngi génn di amal li nga xam ne moom mooy seen campagne déguisée comme ni mu ko waxee gis nañu aussi kii di Mimi Touré tout ngi doon ko wax que ne. mënuñu accepter que ne euh, amadu Ba mi ngi def li nga xam ne moom mooy ay campagne am waaye itam comme ni mu ko waxee que ne tournée économique lay def ba pare moom ñoom ñu leen di empêcher à ce que ñuy def li nga xam ne moom mooy seen manifestation est-ce que nekkul ne li amadu Ba génn moo tax ñu accepter leen seen manifestation. waaw euh, parce que ci opposition bi gis nga yàggul. Mm-hmm. mel ni ay ñoom Malick Gakou ñoom Bougane Gueye ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. ñoom docteur Abdourahmane Euh, gis ngeen leen ñu dañu wax ni dañ leen empêché pour ñu mën a def seen campagne de parrainage te gis nañ tey euh, doon ko ni amul Amadou wax moom mooy euh, candidat Benno Bokk Yaakaar mhm. gis nga ko bi ngi def ay tournée man damay wax ni comme moom mën na def ñu tuddee ko définir ko ne tournée économie la mhm. mais beneen bi tamit comme ñoom ñëpp ay candidat lañ ci démocratie nañu leen yemale. Mhm. comme moom mun na def ay tournées ñu tuddee ko tournée économique. ñeneen ñi tamit bu ñu jugee tamit di def seen tournée mhm. nañ leen encadré. te ni ko suma frère bi waxee léegi rek dama gis ni bu dee encadrement yi mi ngi am police génn gendarmerie dina génn ñu encadré ku ci nekk mu def ni mu war a def. Mhm. dëkk bi du doo dem ci salfaañ. aussi tamit du dem ci violence. aussi tamit du dem fii ci fipp kon nga gis ni tamit yooyu tamit euh, li ñu wax naan bët bu léeg-léeg yenn yi di am boo ko interdee tamit boo demee feneen boo ko interdee waatee. Mhm. mbir mi mun na nekk loo xamante ni dafay dafay dafay këpp sa kaw. kon moment bi ñu nekk nag euh, mën nañu wax ni sax pré campagne la nekk. Mhm. ci wàllu parrainage. ndax parrainage tey gëj na am Sénégal boo ko différencier ci législative bi ñu génn. ak mhm. élection 2019 yi ñu génnoon. nga xool parrainage bi pour quoi yi ñu téye seen pièce d'identité. ñu ne da tekk nanguwuñu pare na kenn. Mhm. Euh, ñàkk confiance boobu. aussi tamit bu ñu gisee tamit coalition Benno Bokk Yaakaar kese kese tamit ci terrain bi. Mhm. opposition bi ñu leen xañ ci seen i yëngatu. Mhm. loolu nag mbir moomu ci wàllu démocratie nag dana nekk loo xamante ni war nañ ko mën a xoolaat. kon tey manifestation bi nag xëy na dina dina dina dindi lu bëree bëree bëree bëri. parce que espace la boo xamante ni dinañ ci tenir seen communication. te aussi. ni ñu ko waxee seen yeneen plateforme yi nga xamante ni moom la ñu am mhm. ñi ngi xaar ci kanam après manifestation bi lan moom moo ciy génn ak aussi yan résultat lay génn te aussi tamit dina gis ni riposte dina am mhm. léegi tey ñoom manifester nañ nit ñi génn nañ léegi tamit état bi nan lay riposter nan lay taxawaat nga euh, gis ni yi tamit buy am di nga gis ni langue politique bu neex la mhm. ndax bu dee opposition bi ñi ngi am liberté di def li ñu war a def parti au pouvoir tamit di répondre mhm. di nga gis ni animation bi ñuy wax ni ci politique dina nekk loo xamante dina neex mais bu dee parti au pouvoir kese mooy am liberté def opposition bi ñu leen koy xañ mhm. kon pour nga mun ko tuddee espace politique bi ñu doon tuddee cercle des idées pour ñu mën a daje ci ay plateau pour ñu mën a daje ci terrain mbir mi dina nekk mbir moo xamante ni dina jafe politique nag pour mu neex mooy foog liberté ku nekk ñu daal di la koy mën a nangul mhm. ñu <laughs>